mbokk yi salaamaaleykum wa rahmatulah salaamaaleykum waa Géejawaay ah Géejawaay goo xamante ni xam nañ ko miin nañ ko tey bu Siteu moo woote bu Siteu combat am digganteem Laurent Ndiago combat bu neex mi ngi nii combat boo xamante ni dina am surprise yu garaaw yu fay am maa leen wax lii Fallou Ndiaye moo ko dëgg Ndiaye production Ndiaye merci le grand combat. Ada Fass ak Jokkel journée bi yëpp ay grand combat la ñu tuddee ko nag Bijou Ngoné suñu xarit xaritu Seydina doomu ndeyam grand sœur am ah mooy sœuru Seydina sama sister kooku sama xarit la sama jabar sama chéri eh jëkkër ji bul mer nag boroom këram bul mer de kii sama jabar bu yàgg la <laughs> jaajëf léegi ñu xool bu Siteu ak waa Géejawaay naka la ñuy waajee bés bu rëy bi dama ñëw nag fekk fi samay mbok samay cousin ziar naa leen bu baax a baax a baax kon ba ci kanam incha allah rabi ñu xool ambiance ci biir ak bu Siteu. Eh, Euh, doomu géejawaay tey moom suñu géejawaay moo xewlewaat dafa mel ni ki bu Siteu tey dafay nekk début de carrière am pour combat am diggante moom ak Laurent Ndiago ban jàngat nga ci am ban état nga gis ak lan ngay wax ci moom. waaw maa ngi sant yàlla jul si yonent bi sant sama ñaari waajur di la sant yow Pape Maguette di sant Seydina bu baax ah di gërëm yéen waa Sénégal waaw maa ngi sama koñ maa ngi sama rak xam nga maa ngi sama xarit bu Siteu moom ku ko xam. doon teg ko sama loxo ma waxaale kombaam jëlloo ko komba bi jël xaalis bi teg ko ci loxo yaayam teguma ko sax si loxoom avance bi yëpp dama ko jël jox ko yaayam yaayam tas ko ci moom papaam ak jabaram ak waa koñ bi mu nekk xale bu teel a jël responsable bi ma joxee xaalis bi xam naa ni metti na ci xol nga jël xaalisu jàmbur joxe ko mu bañ a dese dara mais lépp rek ñaan laa bëggoon mu am ko tey maa ngi sentir ni ñaanu waajuram a ngi ñëw parce que ñii wuy si ko nii duñu wuy si n'importe qui di ko ñaanal yàlla yàlla may ko ndam gu sedd guy di ñaanal kili di kilifa yëpp ñu ñaanal ko parce que xale bu am avenir la boo xam ni lu mu am ci njabootam la koy yóbbu. avance bi nga ko jëlal est que yow xam nga ko. xam naa ko avance bi xam naa ko parce que kii xam naa ni li ne ci moom moo ëpp jëmm ci te nit ki sa li lay li ngay yóbbu sa kër kenn du la ko jox. te dama xam ni war na mën a jël xaalis boobu ci doole dem faj ay soxlaam kenn bañ koo yàpp loolu tax ma jël avance lan nga wax ci combat parce que combat bi combat coow la te am na lu mu laaj. waaw mu dal tey parce que combat moom mënu jaaxal ndax man fii laa jaar te ba tey maa ngi ci kon tey ku seen combat mënul am coow bu ma jaaxal man dal la rek wàcc tey bëre am ndam ñu ñibbisi. moo mën booy bi wala. moo ak booy bi. moo ko mën wala. fuuf kii dooleem ëpp na lii. nga teg ko fan. doole dama xam kii bu baax a baax a baax. jàpp ne Laurent Ndiago amul doole. parce li nga wax ñu bëri loolu lañ. Laurent Ndiago am na doole xale la mais booy bi moo ko doole moo ko doole fuuf. voilà tey dégg nañ benn information boo xam ne léegi la wàcc information boo xam ne. xibaar boo xam ne léegi la wàcc man moom bettu ma Modou Lo Ama Baldé annulé nañ ko parce que Modou Lo dafa def choc war a dem France dem defi opération looy wax ci loolu. bettu ma combat boobu bu du woon ci Modou Lo sax ndax dina egg sax laaroon doon wax parce que combat boobu fiñ ko njëkkoon a bëgg a rek du yoon. lamb jooju ñu wax ko te dee lamb jooju lamb ju ne am na fi mais Ama ñoom ñaar li ñu wone ak seen fan si li ñu wone du combat wu arène man loolu laa njëkk a xeex biñ inauguré stade Diamniadio bi li ma njëkk a wax mooy Ama kii fii la waroon am parce que xajul fii mais nag ñu ngi ñaanal Modou Lo wér kenn yéenewu ko ko ah Ama tamit kenn yéenewu ko lii yàlla defal leen jàmm ñoom ñaar ba li yàlla def rek xam nga ñu xam ni moo mais yéeme na daal lamb jooju daal yéeme na. mais est-ce que liy metti nekkul ci parce que doog na deux ans war a toog xaaraat pour wutaat beneen adversaire waa dina métti mais na muñ rek xam ni yàlla mooy dogal te yàlla moo dogal lii méttit boobu mënoon na ñëw ci moom ñëwul ci moom mu dem ci Modou xanaa Modou moo gën a méttile moom mi gaañu waaw Ama na te Ama sax kat la nag na gën a muñ gën a xam ni yàlla mooy dogal daal caralho. eh eh Bou Siteu Bou Siteu waxal ak gars yi eh